salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu journaliste yëpp ku ci ne sa tur sa sant di nuyu ñu fi teew ñëpp nuyu tamit ñu ñuy seetaan ah ci télé bi waaw di souhaiter ñëpp bonne heureuse année deux mille parce que deux mille vingt deux mois parce que boobu ba léegi jotaay bu yaatoo bi amuñu ko xam nga di profiter di souhaiter adduna yëpp bonne heureuse année deux mille vingt deux di ñaan at ñu dugg yàlla nekk at bu dàkk ci at yi yàlla génn ñu fi mbas bi Sénégal yàlla def fi jàmm. di ñaanal tamit lion yi kan bi ñu dem yàlla jox leen ndam bi ñu indi ko fii di nuyu Sénégal bu nekk am nga ko fii tàkkusaan bu nekk am nga ko fii mais tension bi ñu sentir ci combat yi euh, dafa mel ni dafa jéggi dayoo lan moo waral lu ni mel alors que yow daje nga fekk ku ne yàgg Balla Gaye métti woon na lool te fu mu mujj bëree mu jeex tey ngi nii dinaa la doo ataaya aka bokk benn bool li ci nekk léegi mooy wax bi est-ce ñu jël combat bi benn côté bi est-ce que ñoom affaire bi diisul si ñoom ba ba ba ba ñu jëlee ko violence quoi. parce que man comme li wax bis bu nekk am naa ko bis bu nekk am naa ko mënuñu am bis bu ñu dépassé xam nga lépp dañ ciy dugg nuñ ci war a duggee dem jéem a defar mais su ma juumul ñu est jël ñu leen ëpp doole ba tax ñu bëgg ko kii ak violence. da nga jàpp ni fitna bi am yëpp. beneen camp bi la du sa camp. ah non du sa camp li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne bu ñu defoon comme ñoom tey mën toll fi nga xam ne tey dañ koy nettali leneen lay doon xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëfu mag tourné ndànk dem ñibbi. jërëjëf loolu moo doon proto propos introductif yi waaw. bëggoon naa ko laaj parce que boo xoolee. jërëjëf. boo xoolee signature contrat yi ñu woote mooy woon Sen TV ak bi ñu woote woon Arena. lu ci ëpp Ama Baldé mooy jiitu moom daal mooy jëkk ñëw mais dañuy gis ne Modou Lo moom mooy mujj ñëw lu ci ëpp waaw parce que xam nga ay signature yëpp dafa am convocation bu njëkk bi bu ñuy dem boobu maa ngi jokkoo ak ma war a jokkal muy lig ñu ngi toll fu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax départ suñu kër amoon na coow ma ñëw ba taxaw côté boobu looloo saa yi ñu xaaral tuuti ñu régler problème bi mais suñu côté amul woon benn benn benn problème. problème bi foofu la nekkoon ñi fa nekkoon ak force de l'ordre bi xam nga ñu ñëw dem affaire xat ñu mujj a tamit noonu la demee ñun indi ñun benn violence dañu def suñu escorte ñëw avancé ñëw ba jegee saat jékki-jékki gis ay xeer yu jóge fu nekk xam nga ñu def yëfu mag tourné ñibbi ah mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme bi ma la wax bis bu nekk am nañ ko ci làmb bis du ñu dépassé du ñu dépassé ba ñu def naka suru noonu ba burul loolu tamit tey fu ñu yàlla te ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw la ñu jéem ci wax wala jëm ci boobu tegee ko mais nag ñu indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëf. Modou mën nga tontu d'abord. waaw waaw comme li ma wax sànq rek suma supporter du ma leen di wax lu dul incha allah combat bi na am parce que man boobu ba léegi li ma war a nekk maa ci. ñu jàpp ni combat bi dina am incha allah te loolu la ñu ñaan mu yóbbuñu ci ak jàmm salaam di wax supporter rek ñu dalal seen xel bu baax a baax seen bër xam na lu ne ci kanamam xam na lu koy xaar bu baax a baax incha allah te maa ngi ci yàlla baax daal. waaw comme li nga wax jàmbaar Wrestling Rock énergie parcelle mbooloo yëpp écrit yu nekk parcelle yëpp écrit yu nekk parcelle man benn laa ko parce que tey su ma amee combat ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen écrit ñëw nekk sama côté mel ne ku nekk rek énergie te papa moo amoon combat bu jàpp ñëpp ñu koy pare. loolu moo taxoon ñun ñu dem foofu di ko jàppale mais rek énergie ñu nekk toujours incha allah fa la ñuy nekk bay bàyyi bëri bu soobee yàlla. contact yi yaa ngi koy def ak waa Rock énergie wala eggagoo ci level boobu parce que dafa mel ni nee nañu da nga làqatu maa ngi maa ngi ah, fa laay ñëw fa laay ñëw. di entraîner quoi ñoo ngi daal xam nga ci liggéey bi li ñu yaakaar moom ñuy may tam ñoo ngi ci incha allah lépp étape par étape la bu ñu tolloo ci étape incha allah bu ñu war a demal feneen la ñuy def incha allah. am loo xam ne moom ma ne ko waxu mbër la jaru sax di tontu quoi su ma demee boy ragal góor waxuma lu mbër su ma demee bay ragal góor ma xoolaat sam bopp waaw. muy wax nag ay combat bi ku mën a quoi yooyu yëpp ay la rek ay wax bur xumba rek quoi mais géew ga bu ñu yu nekk xam ku nekk xam nga yàlla baax na yàlla may talag fekk rek incha allah wax moom jarul muy mi ngi la laajoon. waaw ah, waxoon affaire de galaaj ah. lu tax aussi dafa mel ni dafa am lu am sa ak Ama ba booy wax sax doo tudd turam. question waaw loolu ok am na lu am sa diggante ak Ama ba booy wax sax doo tudd turam bu mel ni dafa am benn ñagas-ñagas seen diggante mbiri laaj aussi dafa mel ni dafa nara dem ba yàq làmb parce que xëppante beeg yooyu ñu ngi koy xalaat seen diggante. ay ñagas-ñagas mënul am sama diggante ak Ama parce que loolu li may wax làmb moo ñu boole ñu benn takkusaan bu jeexee bu ñu dajee xanaa ji xew wala leneen ñu am jàmm. suma adversaire la ñun ñooy mayante xaalis amul lenn lenn lu ma yéene sa bopp laa ko yéene wallahi naa sa bopp laa ko yéene amul benn ñagas ñagas luy am ba may bañ a tudd turam mais des fois xam ma rek nga wax a xaalis mooy loolu noonu mais amul lu am suñu dara waaye ay affaire yu ay xumbal rek ci làmb nag xam nga yu ci bëri yooyu ay xumbal la rek ci làmb man boobu ay xumbal laa ko jàppee sooy loolu daan mbër man jàpp ma ni loolu mooy daan mbër mbër lu koy daan saway liggéey boobu ko la ñëw taxaw ci géew bi dangay eh, ñëw fële demal indi ay bari nga ñëw xëpp fii ak yooyu yëpp rek laa ko te boo amul bopp dëgër loolu mënoo ci kii mais alhamdulilah expérience bi am ci làmb yàgg naa ci yooyu mënu ma déstabiliser mënu ma yëngal waaw. booy waxaat wala nga koy dëgër loolu kay nit ñi ku ci nekk rek mën nga def sa seere man su ma lekkee avant su mbër dama ciy def ful la fayda jëm ak fii mm. defe naa mu suma bëree ñu bëri naa la càmm damay def li ma wala a def li ci des nag. moom yàlla moo yor li ma wax laa la lu ma waxoon démb laay waxaat du mu ñeex lépp kenn waaw ma ne ko combat bi du ma ko mus dama ne ci làmp di ci bay suma waar ba yàlla def ma jël couronne bi tey jël couronne bi sama premier combat war a nekk Ama Baldé kon combat bi xam naa fu ma yegg xam naa fu ma yegg bu baax a baax a baax xew ma ko du ma ko mos a xew. jamais te lu yomb sax dafa baaxul lu yomb bu ñëw fat fat dóor mu daan wala yenn dóor si non. bëgg naa mu saf saf balaa yooyu yëpp def incha allah jël la am puisque bis bu mag la dañ koy xaar yàgg lu yàgg lu yàgg te bu ñu ñëwee bis bi war na war a bëgg incha allah bëgguma ñëw rek ko daan wala ñu bëri lu saf saf wala xeex lu saf saf ci la ñu soxla incha allah loo ci wax sama bëgg bëgg loolu waaw. <coughs> mun bay sa question dégg naa ko mais àdduna ku nekk ku nekk màgg ngay ñaan màgg ngay ñaan ku nekk màgg ngay ñaan ci lépp nag ah mag du yeel yu gudd rek wala boobu rek wala màgg yàlla dogal na ci làmb comme li nga wax jafe-jafe yi bëri na dem nañ dem nañ dem nañ am daal tax sax bu nekk signature bu nekk xam la keroog comme li nga wax am na benn essence sax yi nga xam ne dënn yi tàngoon na naroon nañu affronté yi mais comme ni nga wax ku defarul rek yaa yàq te tey bu ñu defoon comme lu ñuy def kon li may wax heure bii leneen la ñuy wax dañu toll ci làmb si nga xam ni lu defar rek lañ war a def luy defar rek lañ war def bu ñu gisee lu yàq sax ñu dégg ko loolu moo tax keroog loolu amee xam nga dem nañ taxaw SDC mais après ñu ne dem ñun ñi bi quoi sinon xam nga dañ fiy gaañ wala ñu gaañ amul benn sens loolu moo taxaw ñu dëpp keroog. non mais xam nga affaire yi moom bu amee ku ne di nga wax sa xalaat rek man mii bëri nekk acteur moom defe naa tal naa leen dul di di di di tëgg ay làmb nekk ay production si ma ci li ma nekk laa nekk muy sama entraînement moom promoteur la comme ni ma yàgg na tëgg bis bu nekk bis jaaxlu ko def ñu fay man ak Ama Baldé ñu war a sañu bëri incha allah di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci ak jàmm soobee yàlla pourtant nag Malick yàlla rek moo tax may wax Maodo mu ngi nii toog laaj ko ndax avance am un franc manqué na ci laaj ko ko mu ngi nii. amul benn dërëm bu coo xamante ne manqué na ci. te reliquat bi CNG laa ko yóbbu ñu jox ko ko mu ngi nii yore lu ma leen dara. am na loo xamante ne nag. ah non kay jaru sax wax. saa lu ñu waxante bu amul lu ci manqué kon. Mm-hmm. kon ñu lu ñu lu ñu war ak moom duñ ko def. Mm-hmm. waaye tey moo ngi nii woote ñëw leneen ak leneen bu woote bu parce que contrat moo ñu tënk. Mm-hmm. lu ñu signé lu leer nañ ko. ne jam sa waaw. waxatu waaw sa question bu njëkk mooy li ma wax moom loolu laa jàpp parce que loolu laa jàpp moo tax man yi xanaa li ñu jël dafa nëbbu doole ba tax boobu ba léegi xam nga saa yu dara taxawee rek ñii dafay affaire man loolu laa jàpp dañu teel lu leen nëbbu doole mais man téléphone s'il mais man loolu jaaxaluma comme li nga wax takkusaan bu nekk bëri naa ko bis mënul des ci man kay xam naa moom ñoo jël lu leen doole moo tax boobu ba léegi ay benke-benke di am ko mais nañ ko koy offal rek diisul ko ndax dédommagement am na ci report yi. waaye xam nga affaire de Covid 19 la wax dëgg yàlla xam nga loolu ñëpp la touché parce que promoteur bi teg combat am moom bu bu bu sañoon combat bi am am lim ci am dem avancé xam nga ñun tamit noonu mais tax na li nga xam ni yàlla daal balaa bi yàlla wàcc la ken mënu ci daal état nag am na yu mu doon def mais ñun nag mbëri moom ñun deful ñu ko wax dëgg yàlla am na ñu mu def ay dédommagement ci fond Covid bi mais ñun mbëri moom gisuñu ko vraiment mais sant yàlla nag alhamdulilah. li ndax jot nga ci de. promoteurs yi ñoo tere si que yow da ngay a sa avance ci Covid. exemple ah Covid bi jeex yow da ngay continuer li ngay am da ngay am yow amul perte mais laajal Modou mii laaj ko moom kañ laa régulariser combat bi laaj ko ko. waaw comme yow est-ce que matul dix mois avant Covid laa régulariser man. mu ngi nii toog kay man du lu may wax man. promo moom mu ngi nii toog. xam nga loolu tey bëri moo ci gën a perte bëri mi ah. jël avance. Covid ñëw. Mhm. kenn dédommage wu kenn defugul dara. léegi xam nga ni day dund loolu lekk na ko bu yàgg léegi combat bi war a ñëwaat sax wax ñu jàppaat ko loolu moo ciy gën a dem. Malick est-ce que lamb ji est-ce que lamb ji amul benn lobby buy daw bu ñu. ñu am mu am ci xeet yi est-ce que. ah oui parce que yow problème bi amee ñu bëri génn nañ wax nañ ci yow yow yow problème Covid bi woon wax tamit ci ci affaire de fond Covid bi woon. parce que ñun ñëpp ay affaire bi ñëpp la impacté woon. boobu jël nañu ay avance to Covid ñëw ñun ñëpp a ci am balaa bu yàlla wàcce dañuy muñ rek mais tamit affaire yi moom amoon na ku mën day am ku mën amoon na ko. xaw ma maa ngi maa maa maa bi daal xam nga. jeex est-ce nekk di xalaat combat bi ba jeex wala da maa ngi ci bi ma war a nekk daal di liggéey vraiment yokku ma wàññiwu maa ngi ci diggante bi ma nekkoon rek waaw. loolu amaat ci kanam rek incha allah. <coughs> sëñ waaw sa question d' abord communication mu ngi diggante ak ak ak ak suñu fan parce que ñu ngi def ay réunion ñu ngi am ay groupe ci ci ci whatsapp moo tax ñu ngi waxtaan wu baax a baax te lii nii ñuy wax toog nañ fu nekk fu nekk di ko wax mais day des rek làbbali fas moom taxu taxul taxul loo ko làbbali rek di wax ñun mbër yi dañ ci am responsabilité yu mag a mag. muy di gën a wax ak supporters yi di leen ñaax rek waaw mais ñoo ngi ci ñoo ngi ci ñoo ngi ci tout le temps. waaw pourquoi pas. sensibilisation pourquoi pas. pourquoi pas incha allah. atia ah yow lu yëkkati fitna ba pare yow nga bëgg ci waxaat kon yow yow bokk ci lu yëkkati waat fitna ah. <laughs> non waaye li ñu waxoon daal wax nañ ko ci boobu passé nañ ko ñoom ci leneen quoi.